élection présidentielle 2024 mu ngi ñëw bu baax a baax juróomi weer rek moo ci des wante ci juróomi weer yooyu daanaka lu bëri leeru la te am nañu ci war a jël ay place suñu coalition war nañu am bu ñu ànd nekk benn a teg équipe yoo xam ne si dinaa leen jàppale itam ni ma leen war a jàppale ci waxtaan ak waa réew mi ngir ñu moytu li nga xam ne dina tax Sénégal saaraan ëllëg place yooyu nag mu ngi toll daanaka ci ñeent ñeent ñoo xamante ni ñu ngi ci langu politique gi bokk ci biir APR ki ci njëkk mooy Amadou Ba di premier ministre keneen ki di ancien premier ministre di Mahammed Boun Abdallah Dionne ki jiite wàllu mbay mi di Aly Ngouille Ndiaye ak président Seize Abdoulaye Daouda jàlloo ku nekk mu ngi def lépp ngir lépp ñëw ci mooma gën a am taxawaay ci xarale yees yi gën a am taxawaay ci biir champ politique bi wante tamit ci événement religieux yi nga xamante ne ci la ñu nekk ak yi di ñëw te président ma Macky Sall dafa war a tànn benn ministre lii la wax. waaw xaw guma ci dara de waaye normalement war nañoo xam kandidaa bi ci semaine bii te euh, ñëpp ñoom ñi ngi wax waaye ak jàpp nañ ne président moom tànn na ba noppi. mu nekk tànneef goo xamante ne dara leeragu ci. loolu am ay waxtaan yu bëree bëre. li ñu waroon invité mooy xiiroo ak ŋaayoo ci biir coalition bi. fi mu ne nii lépp jaar na yoon président moo war a tànn te li mu woote mooy booloo. ku nekk yaa ci tënku. loolu nekk kàddu benn responsable politique ci biir coalition bi. élection présidentielle yi di ñëw nag dara leeragu ci. pouvoir bi ñoom ñu ngi seet seen candidat opposition bi tamit. kuy dem ak ku dul dem. ngi amagu ci. ay laaj ban yoon lañuy jël. ban discours lañuy yëkkati. ngir élection 2024 yi su jàllee. Sénégal soobuwaat ci liggéey.